rek ma soog a ñëwaat ci loolu. Hadj ah, Mansour. Hmm. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi lay ziar Diarra ah, di nuyu Birahim di nuyu Al Amin. maa ngi lay ziar di nuyu. Euh, maa ngi ci oto bi ci suuf tel naa ñëw ah dama doon am mbir du ma doon ay gala rek. jërëjëf. Ah, danañ ci boole yooyu nag. parce que c'est yow ci li nga xamante moom la ñu bëggoon a waxtaanee ak El Hadji Mansour génn Barthélémy Diaz ni ki dem Ousmane Sonko génn na Barthélémy Diaz moo njëkk a génn tudd Ousmane Sonko Ousmane Sonko génn tontu ko Barthélémy Diaz génnaat ni ki démb daal di dalaat ci kaw Ousmane Sonko mu mel ni moom la ñu doon waxtaanee fan yii yëpp ci biir Yewwi Askan Wi réeroo mu ngi fay waajaal. bon yooyu askan wi est-ce que est-ce que parce que dafa am ñoom lu ñuy wax leader nga xam ni jotaay boobu ñoom dong ñu am sañ-sañu am fa ñooñu en général buñ demee ba cëgg desul ci guy ñoo am li ñuy wax droit de veto jël euh, sax am ay njiital mouvement yoo xam ne ci biir coalition bi mun nañu sax ëpp doole yenn leader politique ci yenn parti politique conférence la quoi ci biir conférence de leaders boobu euh, ci la sikkim fasto ci biir coalition bi jëkkoon a commencé di am sababoon bi ñu génnee Aminata Lo Dieng euh, sëñ Mansour Sy mais coow lu mujj lii Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko noo am na ku ci joué lu leerul am na ku ci joué lu leerul Euh, Mansour mi ngi wax ne ci biir yeewu dafa am ñoo xam dañ ci nekk pour seen intérêt bopp wala sax ñu def ci biir ay clan mais Barthélémy moom intérêt boppam moo tax dugg ci coalition amul benn homme bu dugg ci coalition benn lu dul sa intérêt bopp moo ci nekk d'ailleurs moom nee li ko gën a intéressé mooy xalifa sàll nekk candidat keneen ku bëgg a nekk candidat beneen bi ci des mooy am na démarche bu bu parti def ci biir au nom de la coalition euh, charte coalition bi jàppandalu ko ko pour mu def ko ak même bu fekkee bu fekkee nekk na leader parce que ñu bëri ñu nekk ci biir coalition parti moo leen dàq politique li dund ci wàllu politique dund ñu ko mais dafa am benn charte boo xam ne moom la ñu tënk coalition bi am démarche boo xam ne boo koy entamé dafay fekk mu nekk lu ñëpp yëgoo euh, ci biir discours yi aussi da ngay piéger sa bopp par rapport ak sa waxu démb doo ci rendre compte man jàpp ma ni euh, ñoom ñaar coow la lu mën a xëy na feeñ ci coalition bi. bu fekkee bëgg nañu sauver coalition bi laa wax de mais man nag naka jekk góob moo woon coalition bi gudd fan góob moo lii am ni man bettu ma de xëy na mun nañ ko jàngat nii ci kaw nii mais man amul lu ma ci bett parce que principe bi du benn gëm-gëm yi du benn te wax ji dafa setul kaay leen ànd dem ci élection yi dem ci élection yi bu ñu eggaatee ci élection yi ku nekk demal sa bopp mais bu ku nekk demalee sa bopp bu ñu eggee deuxième tour mais deuxième tour contre kii kii ñu nii du dem ci élection. ñu sosaat fi yeneen kuréel dañuy dem élection euh, yu Macky Sall dul bokk mais dañuy dem wuy ji dialogue bu Macky Sall Barthélemy Diaz mooy bokk na ci initiateur dialogue bu bees bii Barth avait dit que du mos a dialogue ak Macky Sall parce que méritool dialogue Barthélemy dafa woon du mos a dialogue ak Macky Sall parce que méritool dialogue xamul dialogue moom bu bàyyee bu bàyyee jalgati rek di li charte réew mi wax bàyyi nit ñi ak seeni ay droit du aaji dialogue parce que lépp dina dox normal mais entre temps bu fekkee yi fi dafa gën a tàng gën a radical gën a metti ci ñenn ci opposition bi bokk ci coalition bi comme misaalu Ousmane Sonko boo amee taxawaay boo xam boo ko taxawee euh, fekk ci bi ñu waajal élection locale yi parti avait dit de façon kanam boo xamante ni bii mooy je déteste c'est-à-dire dañuy bugguma dajeeg Macky Sall bugguma ko bugguma ko parce que dindi ko baax je n'ai pas rencontré Macky Sall paam Ngagne ni ko est-ce que bu fekkee jamono bu doxee nga nekk maire Dakar yoon moo leen di dajale président ba la soxla mu da jaax Macky Sall après un an net parti proposé pour def médiation pour dialogue am bëgg naa xam la moo différencier dialogue bu daaw ak bu ren te yëpp tënkoon ci ñu dëg ma ci élection dialogue bi baax te woote waat pourquoi mu tënk ci la mu ci tënkoon ni Macky Sall du nekk candidat et mu initier dialogue bu Macky di annoncé ça pose problème maanaam dafa war a woroo euh, au début barte boo xamante dafa tàng barte boo xamante day wàcc sur le terrain mais léegi nee na maanaam age bi mu am léegi ci wàllum bi mu am euh, war na mën a tax mu taxaw lay muy muy dem ci wàllum idéologie politique ak nekkul ci démarche boobu moom bi ñu rejeté liste présidentielle listu euh, liste législative yi ak léegi bi ñu ko fi rejeté ak léegi bi ñu fi convoqué Ousmane Sonko Euh, moom Barth te muy ànd ak ay ay doomam te ñu koy gazé ci mbedd mi bu ëppee at itam ci lay yem mënoo xeex ni mën naa xeex daaw ren mënumaa xeex parce que diggante bi jël naa fi âge ak expérience ak connaissance bi tax mënumaa xeex xëy na ñaari xeex duñu benn dialogue ci Sénégal ñëpp ko soxla mais day tegu ci yoon boo xamante ne bii ñi nga àndal ci guerre bi foog ñu jot information comme ni mu jaadoo bu fekkee dañuy négocier ci dialogue aussi Barth am na bagage bi ci wàllu politique mais natt bi mooy amul positionnement ci wàllu politique bu ko ko permettre parce que bokkul ci leader yu coalition yi wax naa ni am nañu ni am na ay leaders yoo xam ne moo leen dàq def politique mais bi ñuy def choix par exemple Ahmed Aïdara def dafa dem créer ji mouvement am Amadou Ba créer ji mouvement am keneen dem bokk ci benn association kii dem uti parti moom dafa choisir bokk ci parti socialiste ba parti socialiste am problème mu choisir des ci taxawu Sénégal bu Khalifa Sall loolu option la ba heure bi fekkoontoon dafa créer mouvement jàppale. Euh, Barthélemy day nekk leader boo xamante ni bi ci la doon gën a placé pour entamer benn dialogue pour waxtaan ak leader yi mais même ci bi ñuy bind liste yi ay njuumte di ci am mu am benn bras de fer yéen a ngi bi ko Sonko woowee ni ko yow sax doo leader kon il faut ñu jël décision ci sa kaw mais mënoo xeex bi ñu rejeté sa liste problème bi dañu am dañu am ay liste yu dem rejeté bu Barthélemy rejeté liste nationale deux jours après ñu nanguwaat liste Barthélemy continuer rejeter liste nationale ay question yu bëri am ci xel yu tey yu bëri am ci man sama xel bu tey boobu noonu maa ngi nuyu sama xarit Déthié Fall parce que Cissé bu ma bañ boo xam saa bu ma xelaale mu woo ma parce que moo yóbbu woon liste yi mais loolu munu ma munu ma koy bañ a tudd parce que mënoo am coalition bu toll ni Yewwi Askan Wi ñu composer confectionner seen ay liste ñu dem ci entre nuyoo ak bàyyi ciy loxo ñu def lu tax list ba forclos loolu kenn mënu koo bàyyi mu sedd et ñu bëgg ko bàyyi na mu jàll noonu noonu rek de façon très facile entre ñaata candidat ñoo déclaré wu ci biir coalition Yewwi Askan Wi ñoo des ba léegi war a déclaré prétexte bu ñu eggee ci deuxième tour ñun ñëpp ñu àndandoo jàppale ki nga xam ne moo jiitu ci ñun pour mu gagner ñëwoon naa leen non seulement li ñuy xeex pour Macky Sall bañ a nekk candidat sincèrewul mais même bu ñu demoon ba egg ci deuxième tour sax dina am ñu jàppale Macky Sall le fait ñu ñu accepter dem ak Macky Sall ci élection ça pose problème gis nga dañu judd ñoom seen judd xaw a niroo lool ak taxawu Sénégal non euh, non non coalition Yewwi Yewwi Askan Wi mu tudd coalition booloon ñoom Moustapha Niass ñoom Ousmane Tanor Dieng Siggil Sénégal Siggil Sénégal ah. dañu niroog siggil Sénégal ay principe mais siggil Sénégal daf leen ëppoon sincérité wàllu démarche euh, li am ni c'est historique ci wàllu nombre mais c'est pas historique politiquement muy dem ay élections locales opposition créer benn coalition bu leen jox ñu gagné ay maires yu bëri fàttewu leen yu mel ni retour Jacques Bonin ci diwaanu Diourbel lu mel ni bi Aminata Mbengue Ndiaye gañe mairie bu Louga booba ñu ñëpp booba ñu ngi ci opposition bi ah mais siggil Sénégal la woon mais dafa amoon ay principe yoo xam ku nekk euh, da nga am sañ-sañ pour sa parti bokkul ak ni ñu ko ni ñu ko wane woon Sénégal yi li may faral di wax dynamique muy seen loolu ñu jaay Sénégal dañu cee gagné confiance boo xam ne siggil Sénégal gagné dañu cee poussé Sénégal yi loo xam ni foo xam ne siggil Sénégal yeggu fa woon. léegi nag principe yooyu bu ñu bëggee xëy mu bëgg a changer euh, après ñu bëgg néewal doole coalition bi ci baxte mu initier benn dialogue euh, yeneen yi ci des sax du ma ci dellu soit ci bis bi mu choisir pour def déclaration am bis bi moo ta bàyyi xel quel est le rôle de Khalifa Babacar Sall ci génn Barthélémy Dias bu ñemee dañ la tey dañuy wax naan naar bu ndaw lu berkel ba eh, lu mu wax ci berkel ba moom man mënumaa ñëw ne ni ne ni xalifa laay xeexal moom laa bëgg mu doon candidat léegi xool naa ne ni le moyen le plus approprié wala bi gën a jege wala bi bi ñu jàpp ni moo gën a baax mooy toog ci wërngalu table kër waxtaan muy dialogue ñeneen yi moom il a rappelé ko option wu nii moo nekk euh, pour damay dem élection présidentielle dara xañuma ko beneen option bi mooy bëgg naa dem waaye faw ma lijjanti sama bopp ci wàllu yoon keneen ne ni man dama bëgg dem élection présidentielle mosuma see dem ndax mbirub yoon léegi li ma bëgg mooy comme am na façon waxtaan nañu waxtaan pour que ñu teggi mbirum yoon boobu ndax président Macky Sall ci boppam moo njëkk wax ci euh, dajeem ak euh, El Hadj Assane xalifa mhm. bëgg na d'accord na Karim nee na procès bi ça que moom moo njëkk li ñu naan vendre la mèche moom euh, président Macky Sall donc le rôle de Khalifa Sall moi je pose toujours cette question est-ce que dafa nekk ci biir conférence des leaders bi ngay wax mhm. am position leader ñooy àndandoo mais ci ginnaaw bu yónnee Barthélémy ne ko nag ah man tamit sama option lii la te comme yow am nga sañ-sañ yaay yaay monsieur sañ-sañ yaay monsieur ma fit am euh, mën a wax waxal waaye l'essentiel man sama rôle fédéral naa ko joué en tant que leader yow nag sa rôle tamit en tant que sama sama colistier wala sama sama sama sama yóbbante yónnante ah joué ko également pleinement mais li tax calcul yoo xaw a gaaw Birahim nga wax ni ni mu amee solo si tout toutefois ndaw li demoon teen indiwul ndox parce que amnistie la ñu yéene pour xalifa Sall ak ndaw li ñu yónni teen bu indiwul ndox gàcceeg njolloor lay doon exemple lay joxe Ali euh, Idrissa Seck ak Macky Sall ku nekk xam nga ni réeroowuñu ci wàllu politique am na ay schéma wax naa ko fii xëy dama koy baamtuwaat tellement dafa am solo suñu grand Momar Jong wax ko ci wàllu politique kenn mënu ko ci génne parce que président Macky Sall bu fekkee forcé na pour dem ci élection yi un opposant potentiel bu dëgër moo moo mën a moo ko mën a def face pour crédibiliser suñu ay élection kan la donc moom éliminé nañu ko wala ñu ngi taxaw ci tànk mais ñu no mais li li wéetu woon mooy yoon moom li ñu bëgg moom mooy six mois yi li li doon am ci Sénégal li ñu ko daan ku ñu ko daan bu dellu gannaaw amul doo bokk ci élection comme moom nee nag nee na itam moom kenn mënu ko tee bokk ci élection donc bu fekkee Macky Sall dem na te moom wóorul moom itam parce que Sonko ne na ko boo demul doo dem mais dangay ngay da ngay da ngay da def ay paramétrage bu fekkee Macky Sall dem na Sonko demul kan mooy nekk leader potentiel bu mën a crédibiliser suñu ay vote suñu ay élection au niveau international ak ci communauté internationale amul fekkee itam Ousmane Sonko mi bokkoon ci élection yi dem na euh, kan moo mën a nekk leader wala Macky Sall demul kan moo mën a nekk leader bu dul indi coow ci coalition Benno Bokk Yaakaar te mu wóor la ni Idrissa Seck ak démission tagg na Macky Sall di ko tagg di ko tagg ba tudd way juróom ci ni ko euh, ëwma gàcce taxaw ni ko sa doom li mu liggéey ci Sénégal histoire bind na ko mais démission jaar na loolu mais politique mën na lu ne maa mais démission jaar na loolu ak Sonko aussi ni loolu laa lay wax mm-hmm. loolu laa loolu loolu loolu laa jëkkee ci ni kon kan moo wax ci ñoom ñaar Sonko ak Barth mais laka mooy joué itam ci diggante président Macky Sall ak Idrissa Seck ci Sénégal yi ci ay calcul lañ nekk loolu moo tax ma ni la loolu loolu laa lay wax ci Barth ak Sonko gravité bi mu mën a indi ci coalition bi surtout waa ndaw li ñu yónni indiwul ndox maanaam Birahim li wax ne moom la Barth joué Khalifa Sall bu fekkee amnistie bi jàllul bul fàtte ni août la ñu egg ci parrainage kii parrainé kii bu fekkee loolu sottiwul maanaam amnistie wuñu ba amnistie wu ñu. Karim euh, Wade la mooy xew. bu ñu jéemee éliminer candidature Ousmane Sonko Macky Sall kan lay am ci kanamam du tey mhm. élection yi am crédibilité. Mhm. ndax sa Seck bokk na élection présidentielle 2007. tëpp yeneen yi ci des. bokk na élection présidentielle 2012 Birahim n'est-ce pas. bokk parce que ci moom moom bokk na ci ñu jàppale Macky Sall ci deuxième tour bu mu fàllu. Mhm. bokk na ci élection présidentielle 2019. donc amul kenn ku ëpp crédibilité. opposant ci président buy dem élection am opposant bu mel ni Idrissa Seck mënoo koo am ku ëpp crédibilité ci nombre de fois yu bokk ci élection présidentielle calcul politique la moo tax ma ne ñee réerewuñu te ñii li ñuy xëccoo dëgg ci ñoom muy bras de fer bi nekk diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz kuy nekk victime coalition Yewwi Askan Wi kuy nekk victime sénégalais. wax boo xamee ni quelqu'un m'a interpellé sur topp actualité également mi Dias wax boo xam ne ci benn réew